waaw noo ngi nuyu mbokk yi nga xam ne ñu ngi ñuy topp ci seen chaîne bi di alxadimiya tv ci jamono ji nga xam ne jamonoy xéewal la jamonoy mbég la jamonoy tawféex la ci sëriñ bu mag bi ak mboolem dongo yi niñ ko xamee ci waajtaay bis bi nga xam ne mooy waral lépp ci dunduk sëñ bi mooy bis bi nga xam ne ci la liggéeyali woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te sunu borom jaarale ko ci ñooñu ma ko jaarale nuy am mbégte it di tatagal bis boobu di ci ndokkeel murit yëpp tàmbalee ko ci kilifa ak yoon wi Cheikh Mouhamadul Mountakha di ko ñaanal yàlla guddal fanam lool di ñaan yàlla mottali mboolem naali lislaam yi mu naalal sëriñ bu mag bi te ànd ko dongay sëñ Tuubaa yëpp di amaat mbégte lool mbégte mu jéggi dayo di teew fii ci sunu sëriñ sunu magum taalibe di Cheikh Mouhamadul Moustapha mii nga xam ne ñëpp miin nañ ko ci yoon wi ci njariñ lu muy jariñ taalibe sëñ Tuubaa yi bés bu ne te li ci ëpp solo mooy njariñ lim leen di jariñ ñuy gën a bëgg sëñ Tuubaa te ku bëgg sëñ Tuubaa te muy dëgg moom xéewal gënu koo rëy taw feex gënu koo rëy te mi ngi ciy bay wàllu ama ama am solo doon loo xam ne it lu lu raar la ci gendiku yi ñuy seetlu yu bari mooy loo xam ne daf ñuy delloo ci waxin ci cosaanul li sëriñ bi woote woon noo ngi koy ñaanal moom it sunu boroom gërëm ko ci Cheikhul Khadim gërëm ko te it mu yàgg fi lool te yàgg noo jariñ moom nag ñu fas yéenewaat jataayoo ak moom ci tomb bu yitteel jamono fi ñu toll tomb bi yitteel na jamono ndax fi àdduna toll waaye yitteel na jamono ndax dafa bokk ci base yi nga xam ne moo tax sëriñ bi woote yoonam wii waaye mu yitteel jamono it ngir xëy na doomu aadama ni ko yàlla bindee bu mbir yàggee rek mën naa raaf wala mu fàtte wala sax mu dootu xam naka la ci war a doxee su boobaa nag dañuy soxla fàttali fàttali googu nag moom la fi ki fi nekkal sëñ Tuubaa def muy Cheikh Mouhamadul Mountakha te loolu mooy lan mooy li ñuy wax ak sóobu tasawuf moom ku ko xam xam yoonu murit di nga xam ne sóobu lu ci am solo la loola nag cosaan la loo xam ne ñu bari xëy na réer na leen ba Cheikh Mouhamadul Mountakha soññeewaat na ci xam le ne ab murit dafa war a sóobu képp koo xam ne mosagoo sóobu bul yittewoo leneen lu dut mos ko kon sëñ bi moom junj na wax na ci li nga xam ne mooy li mënta ñàkk loola nag jàpp nañ ne day soxlawaat ay leeral ak chara kon loolu moo waral suñ jotaay bi ak sëñ Moustapha Diop mi su ko defee kon sëñ Moustapha Diop loolu rek mooy nekk maanaam tomb bi wala thème bi nga xam ne fas nañ ko yéene nga dimbaleeti ñu ci mooy ak sóobu kon ginnaaw buñ la joxee kàddu gi nga nuyoo ba noppi dañ ciy jooyal laaj bi rek nga wéyaale ko mooy nga leeral ñu lan mooy ak sóobu maanaam taarif bi bismillah
asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu fattaahu wahaabu yaa rasaaqu yaa maliki lifta wahab li yaa warsuqni bi ko ñil ana dayqi ajilan ajalan bil bishri mahamad din hata qinun di dinillahi arkana yasir joxey tuba wa xmini wa qini adal wara wal tudib li sama iskana alaka sama wal aradi wal hawa biha masharikin lirud mashkuran ajib sarbi si min hasan di muhammadin altubi fi axbaam sëñ bi ñu ngi lay nuyu di nuyu waa waa alxadim yi ñëpp rek sëñ Mamadou Touré ñëpp ñu ngi leen di nuyu ci taxawaay bu am solo bi di siyaare di siyaare njiital magal gi mooy Cheikh Mamadou Mountakha xafidahu llahu waraa wa tawalla yàlla yàlla ñu ku ko suñu borom fa yàlla aw yiw guddal aw fanam wéral ay ciram ba yaakaar yi tari bi am ci ci moom lépp mu sotti coleet ñu ànd koog moom xam naa laaj nga nee nga Cheikh Mouhamadou Mountakha de surañ waaye bëgg gi dafa mel ne daantu ak xam sama baay waxoon ma ne ma ne ma murit gi mu ne xëy bu la da ngay xuus soo fittee xam dara xam naa loola mooy suluk bi maanaam xuus ji mooy suluk soo fittee xam dara soo fittee fitti fitti fitti mooy waaw boo fittee ci ndox mi ci ndox mi mhm, kay mhm, kay mhm.
xam naa loolu suluk moom xam nga tasawuf lañ wax donga yu bari xamuñu sax luñ ne ñoom xanaa daal xam gis nañ daal ñu ngi joxe addi yaaka dem ci ay màggal ak i nangam waaye xamuñu sax lan la muridiya mooy al muridiya mooy mooy euh, mooy yëngub yëngub tasawuf la liimaan moo am lislaam lestaan suñu tubaab ngay wax ca wa- wa- wakaana xaqan wax joo xam ne duma tiital la azhabta fawran li siwaana kulla man laysa yakunu muminan musliman mosinan Mhm.
yàlla dàqal nga ma ci sama ëttu biir képp koo xam ne gëmut yàlla gëm gu sell jëfewul ndigal yàlla yi jëfun ngir yàlla kooku nee na dàqal nga ma ko kooku kooku moom du am rek ah sëñ bi loolu loolu moom xoromoon na di accepté fawran fawran kooka saa bu ñëwee nga day jëbbaloo dàqal nga ma ko xam naa ne lu lu lu ma soon a jàngat la Mhm.
bakkaana xaqan Mhm.
ku dikk sëñ Bachirou nee na dafa am ay dongo yoo xam ne ay ceddo da leen doon so- sonal ñu yónnee ndaw ci ci sëñ bi sëñ bi ni- ne ne dañoo bëgg sëñ bi dafa leen intervention ci tubaab yi sëñ bi ne neen ndaw la nee leen ku ànd ak man ngir àdduna ànduma moom ku ànd ak man ngir ngir alaxira ànduma moom ku ànd ak man ngir yàlla bisimilah Mhm.
sëñ Bachirou ne booba ay junni nga ma taqalikoo ñun ñoom ci saasa ndax nee na tasawuf nee na moom mooy xas du ci lay taala fii crucialement tasawuf mooy lépp looy def nga yéene ci nga yéene ci yàlla. kon sun sun jotaay bi Mhm.
ma yéene ci la la la la Cheikh Mouhamadou Fadal waxoon sëñ Cheikh Moustapha Mhm.
ci julli ga Taïf Mhm.
bala ba- bala ma ko def de damay nangul ne ku ju ku bokk ci julli gi ak ku julli ci ginnaaw ñu bokk ci julli gi seeram aram na sa war a yàlla na ko la sarax Mhm.
ci jotaay bi amiin ak sëñ Tuubaa amiin. Mhm.
kon tasawuf la moom fi ñu toll képp ko koo xam ne du doo mu'min mënoo doon murit
Mhm.
ko doon mu'min képp doyut da ngay doon muslim sëñ Tuubaa moom buy buy bu- buy kala classé xam-xam yi daan liimaan lislaam lisaan am na ñoo xam ne daan lislaam liimaan lisaan sëñ bi daa- dafa mel ne daa gisoon ne salaay salama jafe-jafe bi mu amoon mooy lislaam moo jiitu liimaan ci ci saxaaba yi lislaam da ngay jullee ko woor ñu ne ah yow de moom ab jullit nga ñu ñu dugaloo ci suñu biir ba noppi ndekete yow doo ab doo mu'min si si Sëñ Tuubaa ne nag ndekete mbir mi mooy mu'min nga doon ko ba noppi soog a doon muslim
pas-pas bay jiitu ah pas-pas bay parce que jiitu bay jiitu jëf ji soo topp ci misaal tey koo xam ne mu'min nga waaye doo jëfe diine julli woo wóoroo waaye mu'min nga si doon si doon Sëñ Tuubaa nee na nee na baax na Mhm.
waaye ndax ndax ndax boo dee julli di woor te doo mu'min di bokkaale jëf ji baaxul ndax su boobaa dëgguwul sa xol Hmm?
ndax su boobaa dëgguwul ci sa xol sikkuut Mhm.
dëgg dëgg sax mooy Mhm.
jëfoo ngir yàlla léegi nag lexsaan mooy nga jëf ngir moom gëm nga yàlla Mhm.
sëñ Cheikh Tidiane si maa ngi ko dégg mu naan Alaaji Malik nee na Mhm.
nit ñi gëm nañ yàlla waaye dañ ko wóoluwut Mhm.
lexsaan mooy dañ koo wóolu
masha Allah lu am solo Mhm.
al- waaw nit ñi gëm nañ yàlla waaye dañ ko wóoluwut lexsaan nag mooy nga wóolu ko ba tax na lo- looy def def ko ngir moom kon daal sëñ Tuubaa ci yàlla la ñuy ànd ak moom mënoo ànd ak moom tamit te boole woo nekk mu'min muslim muhsin jeex na ci ci ci aji watu amin dara yow bi ñu ko laajee ñi ànd ak yow ñu doon mooy al mu'minuna al muslimuna muslimun ay dama kanu fu waaye nekk nekk mu'min muslim muhsin ci émetteeru Sëñ Tuubaa ci ci ngay connecté ki ngay dox Mhm. léegi buñ ñëwaatee ci baat ba asulu taarif taarif taarif bi as suluk mooy lan mooy koo xam ne daa xam ne yàlla am na Mhm.
yàlla am na am na dëkk bu mu ne misaal la yàlla ñu leeral ko ko ba ba mu xam yàlla yàlla jaral ko jóg bëgg faa dem mu ne waaw man ñu ne ko ah foofu nag ku ku ku fa bëgg a dem nooy def ñu ne ko da da da da ngay da ngay ñaan paas ca saxaar ga wala ca avion ba. mu daal di dem ñaan paas ca saxaar ga wala ca avion ba daal di dugg saxaar ga cëppeel ko fa ba ko kon kon suluk mooy koo xam ne. daa namm yàlla da koo namm namm mooy volontaire la. namm namm ci wolof laa de namm dëgg-dëgg. namm ku namm def nangam. dafa volontaire wu ne daa bëgg am yàlla. sëñ Xaadim Gajaga mi ma jóge sànq mi mi mi ngi nettali ne sëñ Ndiaye si sujet bàyyi sëñ sëñ Mor dafa am ku ñëw fi moom ne ko lii de ab sarax la. te da day kaamil. mu ne ko man du du du ma lekk ab sarax. mu dem dikkaat ne ko lii de addiye la mu ne ko man doom seex duma lekk addiye waa ji ah sëñ bi ne kon ko ko lay pexe nag kon doo lekk sarax doo lekk addiye mu ne ko man adduna bugguma ci dara lenn képp laa bëgg te am naa ko mooy am yàlla gisuma leen léegi léegi kooku mooy al wisaal wisaal danañ ci dikk. incha allah ki ki sóobu def wusool wusool mooy àgg ca dëkk ba. pale pale ba mës naa fa dugg. dugg fa ci buntu ba nii rek buntu ba nii. nga ne nga ne mën naa ne maa ngi ci pale bi. waaye yaakaar naa ñetti jóge wala wala juróomi jóge matu ko. kooku yi wusool wisaal nag mooy ma xam ruq ya yàlla ginnaaw amut limite. ngay dox di wéy kon sulug mooy ko namm yàlla. donga yu bari xamuñ yàlla ba di ko nam maanaam ba koy bëgg bëgg anglais bu ne ay nit di yu loolu laa bëgg de bëgg gi ma ba li ma bëgg a wax baat bi foofu la nekk ay nit di yu dama laa mënta ñàkk anglais la waxaa de ay nit di yu dama laa mënta ñàkk du rek dama laa soxla ñi mënta ñàkk yàlla ba di ko wuti ñooñu ñooy asarikin
kon daal yëg-yëg lay doon boo xam ne da ngay dem ba xam ne am na loo soxla nga daal di engagé yoon la léegi nag am na loo wax léegi da ngay wut mel na ne am na baat boo jëfandikoo da ngay faw da ngay am paas dem dugg ci saxaar ga nangam ak nangam léegi saxaar ma paas boobu lu muy doon ak saxaar gi lay yóbbu lu muy doon
saxaar gi gi mooy sëñ ba gidd bi macha allah
paas bi mooy nga jaayante
kon nit ki balaa soobu faaw day jaayante am sëriñ.
sëñ Fallu ak Cheikh Moustapha ca ca ca. Jolof Jolof Ceen Jolof. sama bàyyi nee na fekk na ko mu di ko nettali ci Madina teg loxoom ci mbaggum suñu mbagg Madina benn tànk baa nga ca escalier ba. ne ko sëriñ mu ne seede leen sëriñ bi gën ab taalibe la. daanaka loolu nag du ma ko waxee fépp ngir bëgg a waxee maanaam taalibe lu luy firi doole ji. su su sunu sunu ay bu baax ba woo nañu ci ci yéen jolof su suba suba gu sedd man ak sama mag ju baax ja Cheikh Moustapha sa sëñ ma ma sàmba sunu baay boobu sa sëñ ma roq yi bu sa moomu sama baay neen ndoo la ko nettalee ba ñëwee mu ne fii de dafa am lu ñu fay jaay am njaay nag luy ngor ca njaay ma njaay muñ la muñ lay jaayloo sama baay daal di daal ci commentaire daal di ne sëñoo ko ne jox naa ko sama doom wala sama soxna nee na ñoo teg mu ne xanaa loolaa ngi mbaa njëggaa ngi daal ne dem leen ci ci seen dale ya lu leen fa am ngeen indi ko te jaayante si fa lu nee na boobu amuñu lu may ay doli xasida ñu indi ko sëñ sëñ bi ne na ngeen wut ak taalibe te su ngeen ko amee ngeen fonk ko kon kooku jaayante googu mooy étape bu njëkk bi ci suluk léegi nag gidd bi comme doon wa man tawassala bi waa silin wasal ku dugg saxaar gu gu paan donte ne dañu ne saxaar ga mu doon dem Tuba waaye daa paan da nga àgga déedéet wa man tawassala bi bi ak sin fasal ku dugg saxaar gu saxaar gu ne ci yoon wi da nga dem Tuba ku dugg ci saxaar goo xam ne daa paan doo dem moom kon gidd bi kon kon faaw mu gidd bi dafa war a am ay ay melo sukkuut muy yan
melo ya day Cheikh Abdul Hasan Sasali da dane xam nga xam nga Cheikh Abdul Aziz almaghribi yi da- da- da- ci iblis da ne ku sëy ba naqari mu mu mënoo xam kooka. Cheikh Abdoulaye Sène Cheikh Abdoulaye Abbas Moursi ne soo bëggee wut ab sëriñ da ngay wut ab sëriñ ni ko wutal ab sëriñ.
loolu mooy.
misaal Serif Seyer Fall ca Tingmantin moo ma nettalee. ma laaj ko ne ko waaw sa diggante ak ak sañ As Jaxate sañ As Jaxate mii yaakaar naa mi may wax gaa yi xamuñu ko de sañ As Jaxate mii may wax nii fi mu toll. sa sa na- lu- seen diggante mu ne ma lu ci jublu m- ma ne ma ne ko da da dama cee dégg dara ma ma bëgg- bëggoon caa am lu leer. booba xam nga moom dafa ñuul sëriñ bu ñuul la mu ne ku kuñ fonk la waaye noonu moom da- dañ koy ñàkkal solo da- da- doo doo gis sax ku koy wax sëriñ bi da- da- da- seer fa la ñuy wax rahimahullah nelaw ndaw mu ne ma waaw damaa ñëw fi moom ne ko damaa bëgg ab sëriñ wu- wutal mu sëriñ mu ne ma bala bala maa tegtal kenn tegtal la sama bopp yaa jaxate jam war la de engagement est-ce que.
n- n- nee na ma fanaan fa këram ñoon ma ci si si am seetu dara moo tax jël naa doomam mu jël sa sama doom doomi si sañ sañ sañ sañ aas ma nga ca Mauritanie gis naa ko ci ma- ma magal gu daaw gi rek léegi lé- léegi léegi ma ngay kallafe léegi nee na ma xëy ñu ànd ma ne ko daa daa bëgg a siyaar kilifa yi ñu ñu ñu dem ca si si Moutala ma ne ko fii baax na ma ma ne ko fii baax na kon léegi gidd noonu noonu noonu Sëriñ Seer Faal wax sëñ As daa bëgg nga wutal ma ab sëriñ sëñ As moom jël engagement bala maa tegtal kenn tegtal la sama bopp
ndax moom mat na ko.
batte ko kon sëñ sëñ As kon léegi gidd bi lu tax mu mat ko moom yan.
xam nga sa- xam xam nga sa sa sa sa sañ aas sëñ tuba sëñ bi nee na ca mañ moo soxraa bi bu doon da ngaa jàng téere te soofu yëpp. te tërbiyu woo doo doo mën a tërbiya ndax amoo expérience bi.
faaw nga jaar ci formation bi.
formation bi. mu moom moom moom euh, jàmbaar la ndax see am surtout jël na doomam jox ko ko. jëbal ko ko. see am surtout jaxate bàyyam. jëbal na ko doomam. ah ko danga ko mate na ko.
ok.
melo yi nag kooku melo yi ki nga xam ne moo war a doon xaayit bi gidd bi. gidd bi. kooku s- s- daa am ay sulut yu metti ok yooyu lañ bëgg.
sëñ bi nee na dana xam tasawuf moom dana xam dénd bi maanaam léegi nature bi ni mu ni mu doxee ak sax al wujud ex maanaam existence bi existence wujud bi nee na da da koy xam misaal tey bu di di dikkee fi yow mën na nafile lool guddi nga ne ko diw bàyyil na fi la ah sëñ bi li ma wax li xoromaa di nafi la nafi la nafi la wax de xam nga lu lu tax mu di ko bayloo waa ji nafi léegi ba kanam la bu koy def da day kontaan yàlla néew ca tarkal
am ku ñëw am njaay ndaa ñëw bëgg ceeb lool waa ji ne ko de del woor s- giddi bi ko del woor léegi del woor gi da koy génn rek ci bànneexu ba kanam yóbbu ko ci bànneexu bi yàlla ok tànn gi ma tànn tànn ak tànnam la koy génne yóbbu ko ci tànn nu yàlla kooku na dëgg aarif billaahi dëgg kooku moom boo toogee fii moom bul ko doo ko wax sa soxla s- sama bàyyi seetlu war naa ci moom boo dikkee nuyoo nga nuyoo sant wa nga ne njaay mu ne na na nga tudd nga ne góor a ah moom fo- fo mu bokk nga ne ko nangam mu ne teg sëgg bu siggee soxla si si la fi indi lay wax nettali la ko ba màgg ba nga xam ne ba nga xam ne xam na ko xam nga ne da da ngay xiin xiini xa- xam na ko mu daal lay wax solution amul dugg ci biir daal di ñaan macha allah.
sama bàyyi bu ma saa toog ak moom daana àgg man coono bi may nekk mooy sama xel mi lu lu ci daw dama koy téye damay sonn damay téye xel mi ndax ndax xam naa ne xel mi lu ci daw xam na ko kooku nag kooku nag m- mooy sax du du kaamil du du du kaamil kamil la kamil kamil la koo xam ne da ne ne àndaral ja daa buur daa buur kooku kooku nga xamante ne dana am cheikhu tarbiya dana am cheikhu tasfiya dana am cheikhu tarqiya man ngaa ñëw ci ci sëñ Gora Ndiaye mu tarbiya la ba noppi maanaam léegi al idhaal wal ixraaj wala taxliya wala taxliya ba noppi nga dem ci beneen sëriñ mu taxliya la mooy tasfiya la nga dem ci beneen sëriñ bu bu bu du yoon wi bu dee yoon wi moom sëñ Taala sama mag nee na laaj naa sëñ Abibu ne ko kuy Seexu Tarxiya ci yoon wi mu ne ko laaj naa ko sëñ Abdourahmane loo mu ne ma sëñ bi mooy Seexu almuraqi ci yoon wi képp koo xam ne dangaa liggéey fenn ba ñu la yégal moo la yégal sëñ bi koy def sëñ bi daal alhamdulilah kon kon nuñ murid gi moom Seexu tarbiya la ñu am ak Seexu tasfiya tarxiya moom sëñ ba
kon loolu la loolu formation boobu moo am ci murid gi yaa ngi woon ci guide bi ok melokaan yi waaw yaa ngi woon ci ñaareel bi mooy day xam dënd bi ok kon ñetteel bi
léegi nag man caa tasaruf man caa so soppaandiku ci biir dënd bi di di di di misaal tey am na am na ci ci ci ci waa joo xam ne ci ci ci ci am na waa joo xam ne daa ñëw ci ab sëriñ ku ñu tudd sëriñ. sëriñ ba ne ko ne ko ne ko daa ñëw di di di sàkku si di di sa- di sàkku si adduna maanaam ay projet lay nangam nangam sëñ ba ne ko yow de sa soxla si bu noppee am na seneen soxla su gën a rëy sa soxla si dañ koo xamul mu ne ko mu mu- mu ne ah mu ne ko yow da ngaa lëndëm te sa lëndëm gi boo yeexee ba sàq la la la jëmee di nga de seetu bi seetu bi léegi léegi yow am nga problème dëgg da ngaa am ak lëndëm goo xam ne boo yeexee lëndëm lëndëm gi da- da- day taqal roog yi fu mu la jëmee ba sax waa ji daal ne ko daal ne ko waaw ah, suñ bene suñ bene ko yow yéen de da ngeen am ay rab yi yéefar lu am solo rab yi yéefar ngeen am foofu nag sëñ bi ci tërbiya ci suluk lu am solo la koo xam ne ay maamam da da- dañoo doon jëflante gi- jinne yéefar ñu amoon contrat contrat bi xam nga jinne day dund ay ay junni at sa maam sa juróom-ñaari maam lañ si yoon contrat ba tey jii mi ngi daw jinne ji ji- ji ñu si yoon contrat kooku ba tey mi ngi dund moom te moom ci ay doomam ay sëtam ci la koy fayu léegi nag léegi nag jinne ji jinne yëfër nga xam ne sulmaaniya lëndëm lëndëm lim lay defloo day jur ci yow lëndëm xam nga ñoom fasaad fasaaduhum raaqan ñu ànd ak jinne yi jinne yi liñ bëgg ci ci ci ñoom mooy ñu alko jinne yi dañoo bëgg maanaam léegi ku ànd ak ñoom alko léegi sëriñ bi nga xam ne ab murabbi la bu xamut loolu gis waa ji xam ne kii kat dafa taq roogi moo taq roogi ñaareel bi lu lu ko lu lu ko ko taqal jinne la dafa am relation jinne mën na ko yëg mën na mën na ko bañ a yëg jinne jooju bu bu bu bu buñ doxata dig- digganteem ak moom mën naa alko kon léegi day mel ne léegi liggéeyu sëñ bi mooy nu muy fexee ba taqale waa ji ak jinne ak ji jinne yéefar yi
taqale gi nag du du firi dàq jinne ji sangee ko ba nga xam ne jinne ji duutu mën a dugal ci moom dara du ko mën a lor waaw ok macha allah kon day mel ne ne ne kon ah kon léegi euh, murabbi bi kon moom wa- wa- war naa am war naa am ay connaissance ci ci lu bari war naa am capacité mën a xam loolu ba noppi nag man koo wax lu ko ci génnee ba tey ci tasarufaat yi la loolu ci ko Ay.
nga xam ne léegi soppandiku ci ci ci ci li am waaye oh, lëndëm gii Mhm.
lan moo ko ci génne macha allah nga nga ne ko nga ne ko defal nangam ak nangam bu defee nangam ak nangam mu nekk traitement tërbiya nag loolu la traitement yi doon ku- ku mel ne së- së- sëñ Bamba nga xamante ne moom capacité bi kawe na mën ngaa ñëw tey rek mu raxas la tey ëf nga dem mu set wecc Mm.
lu kooku nag moom kooku nag moom exception la waaw kooku moom kooku kooku moom yombut.
Mhm.
li li li- li gën a yomb ci ci ka- kàngam yu bari mooy ñu defal la traitement ñetti weer fukki weer ñetti at fukki at.
Mooy- mooy formation bi daal bi nga xam ne moom la sëriñ bi war a defal taalibe bi.
mu ngoog.
Mhm.
ko- Mm.
kon moom léegi étape boobu étape la bu- boo xam ne koo xamante ne xamu ko am na beneen leneen.
Mhm. ndax amaat na beneen critère ci sëriñ ba tey.
taxal ba ma ak sëriñ bi fii fii léegi nit ki Mhm.
ki ñuy tarbiya dafa am ay kiiraay Mhm.
kiiraayul bitti bi nii Mhm.
kiiraayul yaram wi
Mhm.
kiiraayul nafs bi Mhm.
kiiraayul roo kiiraayul sirr kiiraayul sirr sirr yii yëpp koo xam ne jéggiwoo ko ji ci ci yow génn koo sëgal am na juróom benn kiiraay yoo xam ne faaw da ko war a jéggi.
léegi nag sëriñ bi nga xam ne mooy tërbiya ya waa ji bu xamul kiiraay yi ci misaal bitti bi ñu xool que ni nii bi nii xamul couleur yu bari yëpp ma ma di ko xool na ci xaaj ji boo doon julli na ci xaaj ji kon yow julleetoo da Mm.
da ngay fàtte couleur yi teewlu ki bind ki defar couleur yi.
tapis bi su foofu ne- ne- neex naa jéggi moom nga dikk ci sa biir yaram wi laakin maa tala dusul jawaare afdahuma li aqbal xabaaya Mhm.
no- no- no- no- nooy maîtriser jëmm ji tala sus la wax tala sus bi sàdd ga ña- ñaari bind la ta- tala dus bi daal mooy bànneexu tala sus mooy sàcc da ngay sëgg ni dox ba ci ak nga sigg rek seen seen jigéen joo xam ne dalay yéem lool nga ne war xaj ji di xool Mhm.
talasus bët yi sàcc na ak mate de daal di ñëw.
risu nga jigéen for for for sikki xam ne jigéen la Mhm.
talasus sàcc kooku kooku moom mën naa am dana neex a dana dana- dana neex a jéggi waaye nag nag beneen bi sa nafsu liy jóge ci bitti jaar ci yaram bi dugg ca dugg du- dugg ca nafsu alhawa alhawa baax na li li taxoon yàlla bind ko ci ci noonu mën naa am mooy bu hawa amul doo takk soxna doo am doom kon léegi sulaala bi du- du du mën a continuer Mhm.
boo amul xawaa doo mën a ba- ba- tànn ceeb wala laa doo ko mën ko- kon doo lekk ndax lekk xam nga da- da- daa métti ko- ko- kon da da da ngay tayal kon kon kon kon kon kon nafsu baax na waaye nag nafsu am na leneen lu lu lu ñuy tuddee alxalbu awil fuaat bu dee bu bu su fekkee bu ne alxalbu moom mooy ne day soppiku.
yataqallab.
al al al al fuaadu nag bu ñu ko waxee ñoom li ñu ciy jublu mooy ma- maxallul maarifa lay xam dara.
Mhm.
nga xam ne mooy xam ruu fu ñu toll ruu ruu ma ma ma ma ko gisee ruu Mhm.
ruu ma ko gisee ruu ruu nee na isaloon nag ani ruu Qul ruuhi min amri qul hiya rabbi.
min amri rabbi ma ma ne loolu siif yi ko doon laaj salaay salaam ma yàlla xam ne siif yi rek dañoo ñaw ñaw woo xam ne bu leen ci toq joxe ab toq rek mara ditali Mhm.
am na li li li li- li tax ma jàpp loolu ru- ruu mën naa génn di do- do- dox ba màkka ba noppi du dagg siif yi bu ñu ko xamoon capturé ko Mhm.
kon du wóor awal li ru- ru- ruum génn ci jëmm ji waaye nag daggut di daw ba ba ba màkka su soo ko siif yi capturé woon kon ay am di kon kon siif yi question bi ñi ko posé ay siif lañ kàngam lañ moo tax suñu borom na nangu caa wax macha allah. Mhm. Mhm.
ci waaye ruu ruu moom mais soo gisee ruu soo gisee ma- ma- na nature bi mu am nag wa- ma- mën naa fenkat ci ay ci ay melokaan yu wuute kon xu- xulil xulil ruuxi min amri rabbi tekkiwul ne mënees koo gis.
Waaw.
waaw. Mhm.
léegi ñu digg ci beneen mooy euh, léegi ruu gi sirr sirr moo moo moo moo gën a sew sirr sirr waaw.
ak sirru ci tasawuf moo gën a sew ruu am na fa ay lu fay fenkat loo xam ne ci ci ay xam-xam su su ku mel ne xasay danaa la Mhm.
bu dara ñëwee gëstul ba xam ci malaaka la jóge wa- wala jinne am na beneen problème mën ngaa toog nii ne man kat ñu ngi may ilham fekk ne i- i- i- i- ilhamuñ la maanaam léegi euh, sa sa sa sa xel mi mooy travailler connaissance yi ne yi ne ci ci ci sa biir.
sa biir.
composé ay yëf génn dara.
Mhm.
boo amul guide mën ngaa juum.
Loolu jàpp ci- ne yow ñi ñu ngi ilham ilha ilha ilhamuñu la de loolu ci sero lay feeñ.
si si siroo bi Mhm.
mooy liggéey.
Mhm, mhm.
maanaam léegi données yi nekk ci biir mu liggéey ci génn ca ba- la- la- dara yaakaar ne da- dañ ko wax fekk na waxuñu la ko.
kon xanaa Jinne- loo- loolooy tax nit ki léeg-léeg bu nekkee ci yàlla di dox ba am yu jaxasoo ci xelam am résultat bu mu génnee mu- mu waral ak woro su amul gidd. Mhm.
xam nga ku mel ne Cheikh Abdou Hasan Satali yi moo tax mu wax ne lépp lu ñu la ilham Mhm.
lu ñu la ilham yekke wala ko na nga ko na nga ko mandexe ci kitaab ak sunna su wutee moom teg ko fa ndax kitaab ak sunna képp la ñuy digal ñu topp ko macha allah. Mhm.
te fo- fo- foofu it xablal xablal xablal ci ci xoqa wal infiraad yi Mhm.
xablal Loolu tanaazu- xablal tasaddur yi wal tasaddur- infiraad yi tasaddur. Mhm.
tas tas- tasaddur bi mooy koo xam ne daa cëppeelu kuy tër bi tàgg mu mu tàyyel cëppeelu Mhm. Mhm.
bu cëppeeloo xam-xam bi des na infiraat di wét di wérd te kenn joxu la ndigal kooku ma- ma- mën na réer Eh, misaal tey jinne yi dañoo da- dañoo wax ne booy dox kéew mu jëkk mi mooy jinne yi jinne yi ñoo lay wër seen kéew moomu kéew mooy mbooloo mi waaw ah, ok.
seen kéew moomu fi ngay xuus Mhm.
boo ci xuusee nag ñu lay wan lu ne xam nga ñoom mën mën nañoo jël capturer image yi di- di di- di ko tegal Mhm.
soo yeexee da da da yaakaar ne àgg nga ko boo taxawee di mu fenn soo fittee nag ba xuus ba génne kéew mi léegi li ngay xam daal di mën a leer Hmm, kon day mel ne ay liñ naan njonox xawma li li ngay séen ci tali bi noonu mu mel mu mel ne ndox te fekk Kasaraab.
ay ay illusion la kasaraab Kese, bakan ma nga kese.
waaw mhm, mhm, mhm, léegi nag mu amal leen mhm.
lu lu jóge ci malaaka yi malaaka Ah, yi macha allah saru set na nga mën a am connexion ak ñoom jaxasoog ñoom li li ne ci ñoom di di di di- di dikk fi yow ba am na solo lool waaye ba tey yow ki lay wax moomut nguur gi li- li baax dëgg nag mooy nga dem jaxasoog borom nguur gi
kon dafa am étape bu jinne am étape bu malaayka waaye foofu doyut raay raay bi nag mooy nga dem ba yàlla am communication ak sa borom ak ak yàlla su su su su su su boobaa xam ne dox nga ba xam ne yow léegi yàlla ci ngay connecté woo lépp lu mu la waxati loolu leer na waaye fe fekk ak woo foofa ba tey da ngaa war a am git Hmm, ko ko ko koo xamante ne su- buñ la waxee dara suñ tubaab ci dox bi da- dama ca ma ma ma ñu wax bi siblaat muul. bu bu xaw a bee mag. ma ma ma nga ci dara kamil.
mhm,
mu mu naan ila sayyidil maxluum turu turu wa.
mhm.
man de yàlla da da- daa teg ci sama kanam eh, jëf ak ba léegi nag man xawma ban laa ci jël dégg nga de sëñ bi boobu état boobu kon état boobu xam na ne li xam na ne li li muy xam ci yàlla la jóge waaye yàlla da daa teg yaar te waxu ko ne ban ci yaar yi nga ngay jël Seytaan.
kooku sew na Mhm, kooku sew na si biir kooku sew na de mhm, mhm, ma ma- ma tax mu gidd bi gidd moom mhm.
daanaka daanaka eh, am na sama bàyyi nee na génn góor ñëw na ci sëñ Mbacke Madina bayiti ne ko de- dem naa ba àgg fa ñuy tëkk jëng ya kooku kilifa la de dem naa ba àgg fa fa ñuy tëkk jëng ya sama borom ne ma sos jeex na so sofa fi des sof fi dolli tey jii nii xàll saw yoon du tijaaniya du xaadiriya du muridiya kooku wóorut moom kooku foo ko fekk daal loolu mu dil la wóorut de góor gi moom nee na ak daal ba fa ñu rekk jëng ya waaye waaye sama borom ne ma nag sos jeex na sof de sof sof sof moo fi des mhm. Naan li fi nekkoon nga wéyal Mhm.
xam nga xam nga xam nga eh, eh, tey lislaam alxuraan moo mujj ci téere yi Mhm.
bu la neexee nag nga dugg ci nag xuus nag balalu ci ay xam-xam yu du jeex waaye alxuraan képp fi ne nag moom naka noonu léegi turux yi jeex na Mhm.
de- demal ci sunu wirdu ba al wirdul xaatim Mhm.
parce que wax Issa Gueye ne ko ndax du nekkoon mooy wir- wirdu wu mujj wi waaw niru na ko de titre bi day boo xoolee waaye Issa Gueye dana ma jël loolu moom bu mën ko kii mën ko wax ci kaw
kon Waaw.
yaa- yaa ngi woon ci sër sirru mu def sërru sër
am na sirru sirru Mhm.
xam nga fi ñu toll jinne yi mën nañu ñoo xam li na ci ruu gi malaaka yi di xam li na ci sirr bi waaye sirru sirr moom yàgg sa borom la foofu foofu foofu foofu foofu noonu sa sama baay sa sa sama baay da- da- da- dafa am ku- kuy asum ngóor am- am ku naa ko kuy sa baay mu ne ko diw mu ne ko sa baay de koo man positif la sa baay leen tëll lu mu doon mu ne ko di- di- di- xale bi la- la- laay wax naa ko sa baay an positif mu ne ko mu ne ko déet positif ko ko- ko yombul koo ko am sa lépp yowén
moom lan- lan la tuddee Pastef
alhimma
yitte ju kawe xa- xam nga wolof wolof daa mën a lakk pas téef téef téef su foo ko dégg ci wolof mooy lay am ak amaat njug téef njub te fa wax téef téef mooy lu- luy takraar léegi nag pas téef mooy koo xam ne waxtu wu ne mi ngi fasaka fasaat ndax ragal na pas pas ba mu façon démb am na lu ci soppi ko pas gi waaw waaw Fas- waaw fasal.
pas gi lay yeesal saa su ne rek waaw waaw waaw sa sa sa sa sa waay bàyyi nag ne ko rek loolu yombut ko loolu moom diggante ak boroomam la kooku kooku kooku moom eh, sa- sama bàyyi eh, am lu lu- lu ma yéemoon ma ma ma ma, eh, boo toogee fi moom rek am looy xalaat mu mu la- mu lay tontu eh, mu ne ma borom Pastef lisaanu xaal lay waxee
ndeysaan.
ndax sa- sa- sama bàyyi damay gis muy wax misaal tey bi- bis muy wax ne ma ne ma xel xel lumière la da nga koy teg ci sa kanam mu mu lay wan pakk yi boo demee ci ca laalande ca dictionnaire philosophie ba Mhm.
noonu la ko waxee noonu sama bàyyi moom jëngut moom ëllëgoom soriwut foofu te te te li muy wax man maa ko jàng ba ki dem man moo lé- léegi nag léegi nag loolu man jaxal ma sama bàyyi li muy wax lu lu mu doon fan la ko war a jëlee mu ne ma borom Pastef li saanu xaal lay waxee kon kon siru siru moom kooku dafa sew kooku moom yàlla képp moo moo koy xam
Mm.
fo- fo- fo- foofu nag foofu nag mu amat mu amat kon lu lu dansé Mhm.
mooy nekkat kon kon yow siru sirr isfil bidaayati xaw bu zan bi yës juruhum wa fi nihaayati bu fi nihaayati nag ijlaalu jalaalaati maanaam siru sirr boo ci tollee li ngay tiit mooy geesu ah al iltifaat
ku toll ne yàlla boo àggee ci benn dayo bi wuratoo geesu ludul moom ah ok fi fi fi ndool ñoo ñoom ñoo ñoo gën a tiit ñoom Mhm.
ndax da- ci ci ci ci ndax faay bu am bakkaar lay doon bu bu bu rëy ci yàlla. ndax ko ndax ko di nga si naan ca ca ca euh, nu nga waxati. Nuur dari ni. yaa man mala yaa man mala ikatuhu shuhudu.
Mhm.
yow mi nga xam ne sa malaaka dañu laa soppu soppu.
Sappo, na jàkk ah, mhm, mhm, suñu ñoo raf.
mhm, mhm, mhm.
kooku kooku kooku. kooku léegi nag loolu moom ab dox la moom ab dox la. boo xamante ne eh, foofu danaa fi tabal dara waaw
mooy suluk.
waaw maanaam maarifa billaa suñu mbokki su suñu mbokki kawlax yi Baye Niass yàlla yàlla yi dañuy wax maarifa waaw dañ koy jëfandikoo Maarifa.
lu bari. Mhm, maarifa nag laaj naa leen waaw lu lu- lu ngeen di xam mhm.
ak nu ngeen koy xamee suufiyanke yi ñoom murit gi noonu xamuñu yoon li nga xam mooy almaarifatu billaahi ah ok almaarifatu bi bi waasitillaa al wusul.
di xamee ci yàlla Mhm.
xam-xam bi ngay xam nga xamante ne yaa ngi connecté woo ci yàlla ñun loolu lañ tuddee al al al marifatu billah waaye ñun xamuñu marifa marifa ñoom bu dee- loolu ci yoonu lasaar la marifa bii. da da da ko soppali ab talsam. dara bu ko multiplier ko par nangam di ko sikkar la ilaha illa nun nun xamuñu loolu noonu da ngay dox bay connecté woo ci leeru yàlla gi ñu la am nga marifatu billah
Masha Allah.
ñi- ñi- ñaari baat yi bokkut maarifa képp la waa kër Baay Ñas yi di wax ak ak yàlla yàlla yi am na solo de waaye nun ñuy wax almaarifatu billaahi ñaari baat yi bokkuñu de Mhm, mhm, fo fo fo- fo fo fo kon lu lu lu lu am solo la mhm, mhm.
li li ma waxoon ne sama bàyyi nee na murid gi da da ngay xuus boo fittee xam dara Masha Allah.
suubaa ngay am almaarifatu bi- bi- billah connexion bi am alhamdulilah mhm.
Waaw.
kon kon ñoo ngi woon ci melow sëriñ li nga ci wax am na solo lool waaye kon taalibe bi it bu ñëwee moom am na melokaan Kay.
um war a melowoo moom it ngir mën a ànd ak sëriñ boobu si sifaatu saadixil muriidi bi ixtisaar Mhm.
mas naa ko koo dégg euh, mas naa ci waxtaan ak Issa Gueye mu naa ma loolu day euh, sun kilifa yi ci lañ bokk ma ne ma ne ko déedéet kooku mooy sëriñ bi lay tërbiya da ngaa entré ci hôpital bi ñëw ñu ne la bu lekk xorom Mhm.
bu lekk suukar diirant traitement bi kooku si war sa tarix mu di bexti saar mooy ku ku volontaire ba ba ñëw ne man kat xam nga tër bi ñaar la takkoowu am na ak euh, laxasaayu takkoowu mooy ñu jox la ordonnance ne la demal di ko naan bu bu te waaye bu bu lekk xorom njaayoon bi dem dem di lekk xorom kooku moom ñu bu dikk ñu ko ah yow de wédoo xanaa da nga def di nga ko xorom nga naa am na di yàlla nag dana lekk xorom léegi bu bu dee ci biir biir biir daara ji la kon moom du- doom xorom hôpital bu ñu la bu bu la ji sampar bo kii boo xamante ne janaax boo xamante ne ñu- ñu du lekk xorom ñoo fa ne Mhm.
bu lay servir du du la jox ceeb bu am xorom ci lu wér. Mhm.
kon léegi ki nga xamante ne te ne daa ñëw ne da- da- daa bëgg a tër bi yow nga xam ne murid la murid dafa walanteeru benn benn benn ku ñu wax Che- Cheikh Omar Njigéen ci waa Njigéen Njigéen kees yi la nee nee na maamam bàyyi maamam daa ànd ak maamam dem ci Sëñ Tuubaa njëriñ bi ñu toogee nii nee na am monkal wa- wàccee na ak waxande daanaka sëñ bi de ay téere rek la def da jàng na lépp dama damay wut yàlla di nga foofu de.
Mhm. damay sëriñ wut bi ba yàlla.
ne woon na wa baax de woo bu jàngee téere yi ba noppi yesulu ko indraamal wusul ci lay soog a sóobu kon mënee suta soobu te jàngoo ah kay waaye suñu waa nee na wa wa man tajarada li xidmatil jëlil Mhm.
xaba taxaluun fa xamrul laa bi ku ku ku jóobu ku- ku jóg summi ko ne day liggéeyal yàlla sóobu te te te jàngut kooko dof la ndax na- da nga gis touristes yi bu ñu jógee Europe di ñëw dañuy dañuy yor carte waaw waaw Mhm.
yow dañuy dañuy jàng barab bañ jëm ba noppi ba ba mokkal ko soog a dem
ci waaye nag misaal tey wakkat si si saal yi am na ku ku ma coon wax ne ko daal ab dëkkandoo di di ko wax ne ko daal ndax daal gis gis naa daal de- des naa ak man tër bi yéegi des naa ak man mu ne ma nag nag li li am mooy noonu bu ñu fay ñëw ay gone lañ xamuñu woon lu lu njëkkër yi kooku jafe-jafe la bu- ndax man eh, ni ma jëriñoo ci sëñ Saliou gis naa ne waaye jë- jëriñu ci moom man jëriñoo ci sëñ Saliou jë- jë- jëriñu naa ci ay yëf yu xóot te te man ne nekkuma fa te moom man fa woon waaye li mu wax leer na Mhm.
nee na ba ci demee xamuñu ko woon Allah mhm. kon boo ñëwaatee ci ki nga xam ne dañ koy hospitaliser téye ko ok ak ki nga xam ne day jël rendez-vous di dem di ñëw nga xam ne moo war a tënk kon melow murit bi c'est-à-dire incha allah bu si si wàllu saa si mu saa arbaxatu na sama tubaab xaw ma tira Mm, mm.
ak si ko fii maa bari Cheikh Abad li li war a jëkk mooy mu wóolu ne médecin bii mu muy dem mën na métier am
mi ngi aju ci sëriñ ba loolu sëñ mu nangul si ne sëñ bi kat. xam naa ne moom léegi su moom tisaali amri yi su su subaa nag la la ca des moom bu dal bàyyi xorom nga naa xorom de xam naa ne neex na waaye nag xam naa daa xam ne damay lor
moo tax mu tere ma ko sa- salabul ixtiyaar ñëw salabul ixtiyaar salabul ixtiyaar mooy bu bu bu ne la summikul nga ne ah kii mu na summikul nga ne ah waaw xam naa xam naa kon loolu damaa bëgg a jëriñ su summiku Mhm.
léegi léegi léegi kooku ku- ku ku ne ci daara ji la di tërbiyewu léegi léegi nag nee naa li li tax si sëñ bi ne wa wa baax dawoo ji. soo daan jàngee ba noppi te daa bëgg waa ji su dee julli allah ko ba ilimaan ji tàmbali làkk français nga nga xam ne julliwul Mhm.
loolu la bëgg waaye bu dee xamoo yow sa ilimaan ji bu làkk français nga nga xam naa ah xanaa français kon kon avant français kon xam naa ko ndaam da- dama ko xamutoon kon sëñ bi dégg nga mu ne wa wa wa wa baax dafa yasulu ko ina usul mu ne ala ya day ci loxo kan lay doon Che- cheikhin man la ma yu murabbi.
day yoon usul nee na ki muy ki nga xam ne ci lay ci lay wéeru giddi boobu mooy koo xam ne lam jàngoon usul yi mu jàngoon fiq tasawuf tawxiid ne nee nee na du ko sa- sàggane du ko sànq ñu ñu ne ko nan la koy def moom mu ne yaquuduhu
bil ilmi- yaquuduhu bil ilmi wal ibada bi ilmi wala ibada kama yurabbihi bi tarkil aada ilmu bi théorie bi bi bi nga defoon lay pratiquer te lay day théoriser yëf yi nga xam ko muy pratiquer nga gis waaye nag am na loo xam ne yow bi bi nga jàngee ba mënu ko woon mooy tarkul tarkul aada ta- tark ko shahaada mooy sa bànneexu bakkan bi nga miinoon bi ngay naafi la guddi téeméeri rakk sëñ bi ne la ba ko teg la la jox la leneen beneen bànneex waaw ndax yow bi ngay julli booba misaal tey eh, mën naa am yaa yaa- yaa ngi julli di neexal baat ca kaw nga nga- léeg-léeg bu am am ko njaayeen bu bu ubbati ko dégg la ah sa sëñ bi de wax naa ba tey moom mi ngi tara rek bu xëyee sëñ bi ne ah man de de de sa sëriñ bi ma ma koy dégg yow nga ko kontaan amatoo dara.
Tey Abu Isidil Bustami daa mas di na nafi lu guddi xam si raw sirra kàngam ba mhm.
ba kanam ne ko Abu Isid de yaa ngi ne- yaa ngi naafi la nit ñaa ngi nelaw.
Mhm.
suñu borom ne moom ne ne- suñu borom ne ko jël naa yoolu nafila gi xëpp ko ci ñuy nelaw Abu Isir Bustami ci doxam bu do- doxam bu bu tedd ba Mhm.
da- daay ñëw arafaat ne ca kaw doju ba ba kanam ne ne ne ko ah yow de Abu Isir Bustami wàcce nga kaamil bi fanweeri junni yoon Mhm.
añ nga makka na- fanweeri yoon mu mu daal ne ku ku bëgg ma jaay ko fanweeri junni xatmatu quraan a- ak fanweeri añ makka benn faqiir yor yor yor yor mburu mu wow ne ko ma di laam mu ne mu ne ko jox ma ko aw- ab doo ko romb ko mu sànni ko daal di wéy xam nga lu taxa Mhm.
bakkan bakkan bi léegi ama- amatul pexe ci moom moo tax imaamu junne ni tub naa abay si bustami ñetti fan ñe- ñe- ñe- ñetti fan la tërbiwu ñetti fan bis bu njëkk bi mu jéggi àdduna ci topp mu jéggi alaxira bi ci des ci laaj Mhm.
ko ko waaye nag demal ca himma bi doon wax himma Mhm.
Cheikh Abdou Khadre Jilani nee na himma mooy sa xol bii àdduna alaxira ba ca tox sëñ Tuubaa mas sama bàyyi nee na woote na guddi njaareem sëñ Malick Ndiaye ak sëñ Mbay Sarr ñu woote xaji guddi Mhm.
penc mi Mhm.
ba ñëwee si sëñ bi nuyoo salaamaaleykum salaam ba ba ba ñetti yoon daal di ne daal di ne yitte yitte yitte bismillah yitte yitte yitte yitte yitte ba mu ñetti yoon mooy bismillah may leen waaw ku dem sa kër yaay firi baat bi yitte Mhm.
lam la fekkoon ndax noo bu dee noonu la yokkal bu dul noonu soppe Mhm.
waaw foofu de xalaat ko kon kon loolu mooy rek wa rabbi kulli waahidin bi ma yaliqu bi sikkuut misaal ki nga xam ne daa tàmm nelaw guddi nga naafiri loo ko waaw kay Mhm.
ki ki tàmm naa fi la nga ne ko ñelawal salaa salaam ma daa fekk sina omar sina abou si diir ci jàkka ji kii di jàng ca kaw kii di ja- jàng ci ca suuf mu ne ki ki wax ci kaw wax ci suuf ki wax ci ca suuf wax ci kaw ma ngoog.
kon ku ku ne génn na la xam nga lu ñu tuddee xususu nafs macha allah jëf jooy jëf sama bàyyi damaa mas a toog ak moom booba maa ngi ci daara ji euh, jamono na- na- nawet bi nii gerte gerte gerte mbaxal gi ñu, euh, muy attaay takkusaan Mhm.
ma di ko xolli man di ko tegal maa ngi xool nit ñi nii ñoom ñuy xool di lekk ma bég oh sëñ bi bakkanal say say ma ma ma bég ci lu tax man lekkuma Mhm.
sama baay jékki-jékki ne ma ne ma gis ne ma su ne ma soo ko deful ngir yàlla doo ci am dara daal di delluwaat ca tey nga xam ne instant boobu moom instant boobu Mhm. Mhm.
moom ngir bakkan la mooy li nga wax léegi ci abu yazid moo ne mooy li nga wax léegi ci abu yazid Mhm. bakkan bakkan bee ko a aaw aawuloo ma ma ma ma alxuj bu xam xam nga ba- xam nga xosoosu naf si moom su su su su su su biyanke yi buñ la tere y- tere na bul naa fi la de de de del nelaw del lekk bul war ngàtt nga nangam dañoo xam ne yow wi la yow moomu bi ngay kor ngàtt nga sa bakkan la bi ngay naa fi la sa sa bakkan la loolu sero la kon nag kooku nga xam ne moom ñëw na volontaire wu nekkat léegi nangul sëñ ba bay bayli ko foofu foofu am na sew sew léegi Cheikh Abdul Hasan Hasan Saasali yi da- dafa ñëw ci dafa dégg ñu ne xutbu bi mooy Cheikh Ab- Abdullahi ibnu Masis ma nga ca aw am xundi mu dem fa nee na bi ma dikkee am na benn bë- bë- bëtu ndox bu bu- bu ne ci bunt bi ma nuyoo mu ne ma mu wax ko dara rek nuyoo rek mu ne ko demal sangu ci bëtu ndox bi ma sangu dikk mu ne ma demal sanguwaat ma dem ba ma ñetti yoo ma ne ah lii lii lii xanaa du ab tër ne kon ma set daal ne kon léegi fas naa yéene summi ko ci li ma xamoon maag si mu ne bismillah waaw kay lo- loolu mooy sëriñ bi doo ko atte ci li nga jàngoon de déedéet déedéet luy tegtal ba demal ci xudar ak Moussa ah kay Mhm.
Moussa Moussa ba mu bëggee atte xudara ca lam Ca lam xam xamoon.
booba la xuddaate ko mu mu mun maa ne yow.
ci li ne woon na ko ci njëlbeen. yow yow mënoo muñ ndax yow da ngaa ànd ak le- xam-xam. te man li li may wax man gën naa xóot loola.
kon al al murabbi kon su matee lim doon waaw dong bi it ngir mu mat lim doon daf koy bàyyee boppam fa- faw mu bàyyee ko boppam ci kuut ah, donte li muy def dëppwut ak xelam it day jàpp ne loola mooy li gën ci moom lëkkal ci moom.
loolu mooy salabul ixtiyaar mi nga wax léegi xëy na kon am na tarkul intiraat tamit ci kuut mu laqan.
nu muy demee loolu nga xam ne doon walaw bi baatinin.
waaw ma ngoog
maanaa léegi doo compter sa sëñ bi.
waaw ok
s- sëñ bi kat euh, julli jot na. sëñ bi daal ne ma ma ngay julli daal di dem dugg ci biir. ma ne ah sëñ bi lu tax julli wut.
sa xel warta xalaat loolu
Cheikh Ahmad Tidiane Chérif.
Mhm.
dafa am waaju ñu ñëw ci moom ne ko damaa bëgg ki da- da- da- nu ko doy. al kibritu ahmar.
Mhm.
di leen yaakaar naa beneen baat la de Mhm.
beneen baat la.
Mhm.
mooy loo xam ne daal boo ko amee. boo ko amee am lépp.
Mhm.
mu ne ko waaw. ñu ànd mu- muy tër bi yow ba bés ñu ànd ci àll bi. Che- Cheikh Ahmad Tidiane jox ko satalaam ne ko ñu romb ñu ñu romb ab teen mu ne ko de- demal jukki mu ci am ndox. mu dem jukki muy or mu ne ko man man de or or laa génne mu ne ko jëlal mu ne ko man soxlawuma ko donga bi Che- Cheikh Ahmad Tidiane ne ne ne ko ne ko àgg nga. si mënu bi xabaan ñëw na ci tool yi gis ba ndongo jiw saa ko dey gënal tool bi la waa ji fayu di ko waa ji fayu ne ko muuma tool bi yàlla ko moom mu ne ko ak nga dé- dégg nga de bi mu xamee ne tool bi si si si mënu bi moomu ko léegi kooku kon set na kon set na ci lu wér.
set na aka sew aka sew
léegi ndax ndax aji soobu ji am na yu ko mën a gàllankoor yan la
kuy sóobu mag ñi nee ñu képp koo xam ne da ngay sa soxna sëriñ da ngay sol dàllam da ngay da ngay sàngob séram da ngay dugg ci néeg néegam bay boo nga jibbi la nga wutoo ko am
waaw yooyu yëpp moom ay gàllankoor la yoo xam ne maam Thierno dara wax naan ëpp sëriñ sëriñ la dàllub sëriñ sëriñ la cey soxna sëriñ sëriñ la doomi sëriñ sëriñ la macha allah leer na
maam maam Thierno laa ko léegi am na soobu ak dëddu àdduna lu leen wutale
dëddu àdduna kooku kooku ab zahid moo koy def zahid xam nga zuhudu ak tasawuf bokkuñu zahid mooy koo xam ne daa daa gis ne àdduna kat ngir nga am ko coono la da nga def lu lu ay bakkaar mu mu- mu far ko baax kooku moom jàmbaar la waaye du ab sufenke sufenke moom Cheikh Abdou Hassane Sassi lii rakkam dafa am ku ku ku koy siyaare ji mu jox ko addiyee ni ko ba demee joxal ma ko waaye na nga ko diglu nag mu dikk ñu ne ko kat daje gàggoor gu bari mu dikk ci kër gi ñu ne ko sa- daa dem ci buur ba mu ne ah sëñ bi dañu ci ab boor mu toog sëñ bi ñëw kër gi fees dëll ay jigéen ak yu nangam alal ji bari mu sol yére yu fort mu nuyu ko si wax sa sa li mi ngi doon xel mi ne ko yow de sa col gi da- danaan jox ma man sama col gi danaan bu- bu bu ma jox da- da- daal di wax gis nga li li li nga gis nii lépp fii la ne ci ci ci ci ci ci sama mbitu loxo mi daal ni ko diw moomu ko ci addi yëpp ne ko diw moomu eh, nee ko moom mi ngi topp addu- adduna te du du du du ko jot waaye jaaxle ah, waaye sëñ bi kii ni ni mel ak sa- sama sëñ bee mu dikk mu ne ko loo gis mu ne ko ah man sëñ bi ma ngi dem fekk ko mu ñu ne ma ma nga jëm ca buur ba noppi sol cil gu kii kër ga fees dala ki jigéen nga am mu ne ko lu lu mu la wax ne ko nee na boo boo demee diw ne ko mi ngi mi ngi topp adduna te du ko jot mu ne ko lo- loolee dëgg fa moom de loolee nga gis gis ci gis gis gis fa moom de agut ci ci ci- ci xol ba loolu kon asuudu wala Cheikh San Sasel yi ne moom mé- mé- méthodologie yi nga xam ne ci ci la suufee koy jaar ku mel ne Cheikh Abdou Khadre Jilani mi mi ngi jaare moom ci al nu ko waxati al mujahada s- sëñ Tuubaa moom. boo boo boo gisee ni ni sëñ Sam sëñ Samba yi waxee ne euh, méthode yooyu yëpp da koo boole ci ci ci biir yoon wi. nga xam ne ne soo demee ca Cheikh Anta ak Choukru bi nga xam ne moom la moom la moom la Cheikh Abdou Khadre Sasel yi jël Choukru Cheikh Abdou Khadre Sasel yi daa ñëw ci ab dongaam fekk ko. mu ne ko mu ne ko mu ne ko damaa woor mu gis ab ab bidon fee ci ci rajo lu ci jublu mu ne ko dama koy tàngal ndax ndax ndax su ma dogee naan ci mu ne ko kon boo santee cir yi weddi ko boo santee cër yi weddi ko.
da da nga koy seral ba mu sedd nga naan ko cir yi saxal ko dëggal ko dama ci sant gaawat sukuru mu sukuru sukuru nga xam ne moom ci maqaamaat yi yi la bokk dé- dé- dé- dé- déedéet déet fii méthodologie la méthodologie la waaw.
waaw te- te- tey da- da- da ngay lekk lu neex sol lu rafet Mhm.
sante ko yàlla te du la tee dëddu.
déedéet déedéet déedéet bi nga koy def yàlla tax
kon daal dëddu nekkul ci comportement wala yéere yu.
déedéet dëddu mooy nga dëddu def lu lu- lu yàlla taxul
kon xol xol mooy dëddu.
xol bu dee bu dee ci sufenk yi Mm.
bu dee ci suhaadi ñoom dañuy gis ne kat adduna metti na soo ko wutee da ngay sonn ñu ñu far ko ba kooku kooku zahid la saahid la. Mhm.
su su su fekkee moom man na am semblaat day sol bassin yi riis yi Mhm.
toog ci piraat bi ba ci àgg mën a ñokkat dox ba fee mu mu daal di sóonu ci suuf suuf si macha allah nga xam ne gisut gisut lim sol.
téetét kay kooku su fekkee la kon ki soobu faaw mu dëddu.
si kuut macha allah lu taxu faw mu dëddu ngir ne euh, sëñ Xadim Gadiga nee na euh, sama bàyyi da- daa ñëw ci euh, Seelu Gadiga njëriñ ab yoor yoon nee na nee na fekk naa ko nee na fekk na ko moom Seelu Gadiga ne ko- ne ko lu mu mu ne ko damay laaj ku bëgg a am ab cir ci boroomam bu lëgg nu muy def Mhm.
mooy mooy cir bu rëy Mhm.
bu duun su ne ko ah loolu de yomb na lépp lu lu lu lu sa bët tegu ci àdduna nga jéggi ko ba keroog nga am loola. lo loolu mooy salaj bi sóodu bi.
Mhm, ah, ok.
lé- lé- lé- léegi moom suudu xunaa wasiila la du du xaaya.
Mhm. ci lu wér. Mhm.
da da da- da ngay dëddu lépp ngir am langam dëgg la. Mhm.
da ngay entrer ci hôpital bi saa bu ci génnee lekk xorom.
waaw ok kon ab murit manees naa doon murit te doo soobu voilà.
de daa am koo xam ne euh, li ñuy wax ajjana la bëgg ajjana waaw ok.
kooku kooku daa woyof ci ab su- ab sufenke Mhm.
Sëñ Tuubaa dafa am dafa am benn doomu soxna ba muy waxal koo xam ne ne- ci ci loolu ne mu ne ko man de maa ngi dundi suuna di dundal sunna bu kéew ma dee waxtaan may digg seen ndey la sëñ bi ne ko tegaa ñëw ma ma booyee la ci ndey ma waaw macha allah.
léegi nag murit mooy ku bëgg a bokk ci ndey la
kon kon faw mu am yitte ju kawe.
ah waaw waaw.
ah ah ko ko def ko aju xanaa ok ñu kon tëj kon waaw waaw kon waxtu waa ngi kii rek su ko defee daa am ñeenti baat rek yu ma bëgg rek mu ñu- ñu tëjee ko.
waaw am na lu ñuy wax saalik. am na lu ñuy wax majzuub. majzuubu saalik ak murit.
murit mooy mooy ab volontaire koo xam ne ne daa bëgg yàlla ba noppi mu yàlla jaral ko jeex na. Mhm.
saalik mooy mu sóobu Mhm.
mujj sóob nag mooy koo xam ne daa juddu rek fekk yàlla da koo boole ca gaaya ah ok. Mhm, mhm, mhm. moom liggéeyu ko.
di du liggéey moom waaw da koo judd daa judd rek. waaw lé- waaye nag kooku nag moom bu dul mujj sóob saalik du du mat ab sëriñ macha allah.
lu tax mujj sóob mooy koo xam ne daa tëdd di- guddi di nelaw ñu ñu ñu ñu ñu ngufaan ko yóbbu màkka yee ko mu siyaare Kaaba ga fu ne mu siyaare ko noppi tëdd di nelaw ñu ngufaan ko andi ko mu ne dem naa màkka démb de wax ba ba mu leer ñu ne ko fooy jaar xamu ko kon majzuub du royukaay daal.
ma suub doroy kaay ma ji suub saalik nag Mhm.
mooy ko xam ne ne ne ne ne ni ko waxatee ca ca kii ca Fawcet nii ah fa qumtu majzuuban ilayka xumtu ma minka suuban ilayka minka bika alayka wa raditu anka sëñ Tuubaa waxe ji ak a neex ilayka minka damaa jug jëm ci yow ñu ne ko yàlla daam fa ne mu ne mooy déet ci moom la jógee minka bika bi ka ci sa ci sa li nga rëdd ci lay jaar alayka maa ngi maa ngi sukkandiku ci ci yow wa ak a leer raditu- wa raditu anka loo ma jox baax na alhamdulilah kon boog mi ngi noonu noo ngi noo ngi jéggaluwaat bu baax xam naa waxtu ajjuma bi dafa jege waaw jege na jege bu na ko defee ñu jox la nga tàggatoo rek ak soññee ci màggal gi ñu daal di wa- yëkkati wa- jotaay bi.
wa- wa- wa- kay màggal gi de yoo xam naa am na lu lu mu ci bëgg a def ndax yàlla fii sax mu mu mu mën a yaatu damaa yëg ne Sëñ Tuubaa dañ ko fàtte ci màggal gi est-ce que ci naka ah màggal gi màggalu njaayeen li ah
bernde ah bernde bernde man nag li ma fas yéene yor yor bi xa- man li ma adoo woon a màggale bi bi ma si mu mu mu si mu laa joxee la ma joxoon saa bu tisbaar jotee. ma waajal ko toog xaar tisbaar ji wérdu wérdu wax. ren jii li ma fas yéene defal suñu tubaab fidaawu su soixante-dix mille laa ilaaha illallah laa ko bëgg a defal moom moom moom borom tubaab.
waaye boole ci berne bi de.
Hmm?
boole ci berne gi de.
te en fait en fait boo béykat yi nga xam nga léegi nag su ma su ma noppee. def douze mille basmala.
macha allah fidaawul ko murid yi Mhm, mhm.
su ma noppee gis bu ma mu xatabaat midaar yi sëñ Abibu nee na soxna Aminta ñaan nee na sëñ Tuubaa nee na bis boo ko jàng wala guddi ga lu ñu ciy séddale ke- kenn du la ci ëppale. ñu ñu ñu ñu jàng ñeent gis bu ma mu xatabaat midaar yi. bu ñu ko maa jàng ay yoon def ko man loolu la bëgg bë- bëgg a màggale.
jërëjëf macha allah.
kon kon foofu it lu am solo. si sëriñ nee woon nañu fàttali ko de.
Hmm.
timis yi fu fukk ak fukk ak juróom-ñaar ya ci ca magal magal gi di tàmbali Ca ba lay timis yi tàmbali.
fu fu fukk ak juróom-ñett yi loolu li moom solo mooy ku nekk Ndakaaru ba timis yi fukk ak juróom- juróom- juróom-ñett yi bu- bu- bu- bu- boo nga bañ a jógati jëm Tuubaa magal ga jeex na si si sëriñ bi ko wax de ci- ci rajo bi ma ma ma ma ngi koy fàttali Mhm, mhm, fukki fan ak juróom-ñaar ya ca timis mhm.
tàmbali na fukki fan ak juróom-ñett ya ci- ci ci timis jeex na kon xanaa kon ñu ngi sant bu baax macha allah jërëjëf di sëñ Moussa.
jégalu di di di- di jégalu di jégalu sëriñ Tuubaa xanaa waxtu weexat ak ajuma ji waaw waaw noonu la kay Waaw, waaye li yow ci kay.
am solo mooy liñ bëggoon a eh, dégg lépp dégg nañ ko. te Alhamdulilah.
yàlla na doon loo xam ne luy jariñ la incha amul sëriñ allah.
Tuubaa sëriñ Tuubaa sëriñ kon Tuubaa.
ñu waajalee ko bis bi nga xam ne rek ni mu ko waxee. kon manees na ne rek màggal gi mi ngi tàmbale kon le 3 septembre ci timis ok jëm le 4 septembre incha allah.
ca timis ci timis ngoog kon ñoo ngi ñaan yàlla fekkal ñu ko ak jàmm.
amiin sëñ Tuubaa yàggal fi njabootuk Serigne Touba.
amiin amiin amiin amiin